asuma njaboot bu ma sañoon ataba ñoom yow waxtu bu ne ali di canja xar na leen ba man mi billi gisatuma leen asama ñàkk laa lay jaay afay ma yow sama dem sa bërëb liggéeyukaay wala sax daal di dox sa soxla doon loo xam ne tey jafe na fi ci commune bu Richard Toll li ko waral rek mooy yokkuteel jëm cim transport bi moo xaw tar ndaxte fi ñu doon fay ñaari fukki dërëm tey foo mënti wàcc ci biir commune bu Richard Toll faw rek nga daal di ñukki lu toll si ñeenti fukki dërëm loolu nag doon loo xam ni askanu yeewu fii ci commune bu Richard Toll daal di nañ ko ñaawul bu baax a baax ba léegi nii xamuñu lan moo sabab ñii les chauffeurs daal di yokk bi les paas waaye nag chauffeurs yi ñoom it ñu jàpp ni rek lépp lu jëm ci wàllum matériel oto yi jàpp gasoil ak leneen moo sabab ñu daal di yokk lu ni mel waaye tam jafe-jafe jëm ci wàllum dundin gile. da xëy nga sol sa gasoil bëgg samp bëgg am lu mu yebbee sa kër ñun tamit ñun cent franc mi mu ñu arrangé am fii ak cent franc bi da ngay wàcc doo am tus nga doo am da ngay sol gasoil bëgg verse bëgg sampan ah, bëgg am li nga li nga sa kër loolu moo tax gars yi di yëpp di yokk paas yi ak kii eh, pneu keroog benn pneu keroog eh, huit mille eh, cinq cent moom laa koy ji jënde woon loolu moo tax gars yi di yokk nii paas bi kon gasoil dafa yokkul moo ngi moo ngi mu fu nekkoon moo ngi fu mu nekkoon rek fii Richard-Toll fii dafa xaw métti quoi cent franc la amul xaalis benn quatre quatre quatre kese nga yeb waaye gars yi léegi yenn saa duñ gis seen seen bopp quoi ñun léegi xaar ñu yokk paas yi boo génnee fii da ngay samp boo demee ne da ngay samp foo mënti dem da ngay samp mil 1000 francs ngay ngay joxe rek ngay joxe rek gendarme yi ak policier yi ñoom ñoo koy laaj ñoo mooy problème koy paas bi tam seen seen rakk yi seen mag yi ñuy jàng ci école est-ce que tam du nekk seen gàllankoor. ah da ah daañu nekk sa gàllankoor xam naa ni ku nekk xam nga rek jàppalante rek quoi jàppalante rek quoi. Ah, affaire moom dafa métti trop te instant yi dëkk bi dafa dëgër nga jógee fii war a dem par exemple ba fii nii rek ñànge bëgg a fay si 200 te parents yoruñu xaalis instant yi moom dëkk bi daa dëgër dëgg fa neex yaa borom taxi moom lii moom war nañ ko yokk ko def ko 200. instant yi moom ñun ñu ngi nii bu ñuy jàng dañuy dox amuñu paas jakarta amuñu paas taxi mooy loolu dañuy xëy dañuy gont bu ñuy gont 3 heures naaj bi tàng dañuy dox ban ñàkk tooy xepp bu ñu mooy loolu waaw borom taxi war nañu hmm? ñu wàññi ñu paas dëkk bi dafa dëgër instant yi rek booy dem si boutique yi ñoo gën a cher tamit ñoom tamit ba tey nga ñëwaat tamit si taxi ñu ñëw bëgg la fere 200 pour nga dem fii boo paasee aller doo paas le jour affaire dafa métti trop pour ñu wàññi ko. 100 francs depuis la woon xam bay léegi 100 francs lay def bay léegi 100 la waaw. mais client yi jàpp nañ ne distance yu ngeen di daw. foofu bay ba Richard sorewul. demal dëkk boo dem fii nga seet dem cent franc dañ yóbbu lu tollu fii fii. suñu dara dégloo matériel oto ñoo cher. non non gasoil yokkoogul mais lu yokk li moo ëpp gasoil doole. motooru oto yi motoor yi ak huile bi ah lépp même roue sax gonflement yëpp dañu ko yokk kese la de. mais noo leen di jàppale na noo leen di jàppale di jàppale élèves yi. di leen jàppale parce que boo amulee mun mënul arranger mais nag boo amee nga def yooyu yëpp ay jàppale la parce que nit ki daa ko dab sax nga yóbbaale ma nga yóbbaale wala mu dab la ni la aw ma dara cent franc laa yore dimbale ma mais nga dimbale ko te yàlla tax kese. mais ñun lii suñuy doom nga fii élèves yi suñuy doom nga si ñun dunoo joxe paas bis bu ne dunoo joxe paas parce que xam xam ku ku la jëlee sa sa rond-point bay njàngi deux cent xam nga ni kooku jaar na jaar na lu ëpp maa ngi dëkk ba xuma galamalik chaque jour que jëfee damay paas ma wàcc ma ak ak may dem jàngi lépp xam nga journée lëmm mënoo si yàq benn huit cent te instant bi comme ni ko sama camarade bi waxee dëkk bi dafa métti te tamit taximaan bi ba ñuy def lii xalaatuñ si élèves yi mais waa lycée ngi fii waa campement fii xam nga ne benn lycée moo am Richard Toll campement njaw ñëpp foofu la ñuy daje kon su ñu jëlee paas ñu jox ko 200 cela cela veut dire que ñoom dañoo xalaat seen bopp kasi quoi xalaatuñu élèves yi te ñun nous sommes ñun seen ay rakk lañ seen ay rakk rek ñoo ñoo ñoo fi nekk fii di jàng su ma sañoon daal ah, ñu xoolaat seen taxawaay xam nga ñu wàññi ñu wàññi paas yi. état bi war na si jël ses responsabilités parce que déjà état bu ñuy wax état su ministre du commerce war na ñëw tey ou bien ministre du transport. ni ma duggee tey si oto bi sax war na ñëw tey dugg si oto bi paas ba xam ce qui se passe donc mini Sénégal foofu la toll mais bu ñu bàyyee nii actuellement ni ku nekk di def lu ko neex finalement euh, dafay mën a sabar bu tas rek waaw c'est ça donc daal vraiment la président Macky Sall lii war na si jël tous ses responsabilités que ni paas beeg marchandise yeeg war na si jël responsabilité ndax déjà luy jar tey fukki dërëm boo duggee tegaat nañu si fukki dërëm donc vraiment euh, kenn mënatul xam comprendre daal affaire bi tey boo doon fayeku un million toujours day delluwaat euh, dafay mën a même tey salaire yi yokku na ko mais nit ñi sentir ñu fenn que te ni yokku na parce que marchandise yëpp mooy yëg. mais maanaam kuy xëy ak ki gont tam ngay fay 200 francs loolu itam jafewul si journée. mais c'est ça kooku déjà léegi ki nga xamante ne yow euh, yaa ngi wuti fële benn 1000 francs ñu passe loolu aller 200 retour de 200 mais kooku desetoo dara. ah donc vraiment lu doy waar la daal lu doy waar la vraiment euh, ministre bi war na si jël ses responsabilités ñëw si terrain bi xam ce qui se waaw lu moo ko waral parce que du saa tool fii nii gars yi dañu foo jëm rek cent franc la te cent dafa métti moo tax yokk def ko deux cent. deux xaw a tane quoi di nga am gasoil di nga teel am sa versement nga dem noppale ko ji. parce que sa tool fii daa xaw a métti. mais yokk paas tamit li yaakaar ne lu a waaw waaw instant bii ne gasoil moom gasoil dafa seer essence dafa seer dëkk bi tamit dafa metti pour boo xëyee fii nii boo solee gasoil pour sa gasoil génn sax day metti loolu mooy problème moo tax ñu def paas yu 200 200 200 200 sax seerul bëriwul ba doon ay Dakar wala ay Ndar yoon paas fa la gën a seere waaye fii nii 200 200 bëriwul waaye boo ñëwee nag nga ni man 100 francs laa am ah mën leen la defal 100 francs kooku amul problème parce que loolu si liggéey bi la bokk koo amul benn problème. waaw mais ñoom jàpp nañ distance yi ngeen leen di yóbbu euh, warul tax ñuy fay 200 francs 100 francs rek baaxul na ci. non distance yi sore na parce que xool pont Sermat pont Sermat ba rond point 200 boo jëyee xumb ba njaw ah 200 baax na waaye te see da doon jóge fii nii pont Sermat fii nii ba rond nga yeb benn client da nga yóor ak moom ba rond benn 100 francs ngay yeb benn 100 francs ngay yeb doo yeb keneen moo tax léegi ñu def ko 200 200. léegi point point Sermat fii nii rond point yi 200 boo jógee nag rond point yi ba Ndiaw 200 kooku baax na. course bi léegi ñu bëgg course bi léegi téeméeru la course bi ñu def ko 1000 francs ndax ñun bëgg tim bëgg nañ la ñu bëgg nañ am dara bëgg na suñu wàccee verse borom oto bi. dem laa jógee si kaw. Mhm. passe bi 500 la. Jakarta waaw passe bi 500 la. kon chaque jour da ngay perdre chaque jour 2000 passe te loolu métti na trop. matin soir léegi léegi yan jafe da ngeen di xëy da di gont itam di paas da xëy paas da ngeen gont paas wala. waaw su may ñëw dafa sama yaay moom may indi waaye su may ñibbi damay paas. te loolu métti na trop 500. Mm. te HLM dafa sori ay 7 kilomètres. so métti na trop. léegi mm-hmm. léegi loolu suñ ko wàññee dina arrangé élèves yi ndax fii élèves yi dañuy jugee ba ay njaw ñii dañuy jugee ba jàng dañuy gis ñu jugee ay xuma ay xuma yàq sabat te paas bu ñu ko yokkee 200 du leen arrangé de. Mm-hmm. wàññi ko moom. def ko 100 francs def nu mu meloon mm-hmm. waaw. waaw loolu la ñu wax ñu jàppale ñu ndax ñun élèves yi sonn nañu ku war a jógee ñaange war a dem ba fee ngay fay ay 400 ah benn fan rek 1000F ngay dépensé te sa ndekki ñëwugul wallaahi loolu dafa metti sama genre yi moom ah mooy loolu daal temps yi dañuy dox rek. wallaahi dañuy dox ba suñu tànk yu furi seen tànk yi sax day mujjee weex daal de yëpp dagg na wër na paas bi moom 200 ngay dem paas dem paas 200 dellu si te doo jaay. 400 aller retour njaay bi moom lu yàlla xam doy na mooy loolu. waaw ah ñu ngi koy lu ñu wàññi lépp paas bi ku dund gi wàññeeku lépp wàññeeku loolu lañ bëgg. xam nga néew gi doon moom mooy lu gën mooy cher la gën bëgg a cher du dëgg waaw loolu lañ bëgg bu ñu jàppal daal ñu jël. ku xam Richard Toll xam ne ab dëkk la boo xam ne daanaka askanu Sénégal ñu ci gën a bari foofu lañ yéeyoo ndaxte li ko waral rek mooy usine compagnie sucrière sénégalaise bi nga xamante ni daanaka dafa boole àdduna tax na tey ñoom rek bëgg nañu ñu daal di xoolaat bu baax a baax bilee transport ndaxte tamit seeni njaboot ak lu bari loo xam ni soo koy def rekk faw nga daal di dugg ci yilee taxi kalandoo bëgg nañu daal ab waxtaan daal di si jib bu ñu mën a wàññi yilee transport bañ ñu na lu ne ngir bañ ndaw ñaane daj na lu ne ngir bañ ñu wopp dooleem lay daan bul ko jàppee jàmm